dégg nga wala déggoo ma. dégg naa la man damay toog lépp di ma fekk si noonu la ma ko yàlla maye. ku xamul sa bopp doo xam yàlla man dama xam sama bopp xaju balkoo nag xamul boppam. xamul ne y a que des plus violents plus insolents plus bandits plus réew que lui dans ce pays là fii lu fi waaye jënd ñu jënd lu fi waay jaay ñu jënd yow xaju balkon daa mën a yëngal nit ñi may dégg muy naan daa bëgg xëpp ci suñu yelwaan suuf ba ban yelwaan nga yelwaan yow amoo nit amoo dara. ah au contraire moom ma bëgg xëpp suuf ci yelwaanu. Sonko mais merloo Sonko ba Sonko wax. kan moo provoqué yéen mës ngeen gis waa Pastef di provoqué ñaata yoon lañ leen provoqué fii ci caravane yi gis nga ñu riposté Sonko bi muy wax parce que trop c'était trop gis nga Kédougou ñu attaqué la armée waxu ci dara justice waxu ci dara mu tënni xam nga ne waa Pastef xajuñ ci ñoom ñu attaqué waat ñu noppi attaqué waat encore. mais heureusement. yow laa njëkk gis statut nga ne saa waay tey juum nga waroon waxee nii ma ne la lu mu wax. je suis pas au courant c'était à 16 heures. te pourtant wax ji am na depuis minuit. man je dormais. parce que mes jour de repos je dors jusqu'à 16 heures 17 heures. man am naa ñetti fan yoo xam ne semaine bi ba 17 heures laay nelaw. kooko fi am te kenn sañu ma fëgg. sama jabar sax ñemewumaa yee buy jóg ci lal bi sax nank lay def mu ngi ni toog sañul sax yëngatu dégg nga wala déggoo ma bu baax a baax yaa ma ko yëgal ma ne ma ne la il a parlé en tant que le candidat il n'a pas parlé en tant que premier ministre mos naa gis mu sol casquette bi mu nekkee ci gouvernement bi ba léegi <coughs> Là, il s'est mis en casquette, en chemise roulée. Parce que la c'est le candidat Sonko qui est là, le président de PASTEF. Celui que tous les jeunes Sénégalais aiment. ma waxaat baamtuwaat li ma doon wax ku bëggul Sonko amoo walla ci yàlla maa tey j'assume am na benn waaye sama benn vidéo bi may naan Sonko bu ma demee ajana fekkuma ko foofu sax baal naa yàlla ajan ajanam mu ne déglu leen doomaraam bi ey eh waaye yaa xam ne doomaraam laa maa gën a doomaraamee la ko man ngir Sonko doomeram la bu mot doomeram la maa tey. xam naa xamuñu sa waaye léegi après kooku xamul ne maa gën a te bu ñuy jàkkaarloo sañul wax déjà deful tuuram ci YouTube bi na def tuuram dinaa ko lokkati ba gis ko ma sawloo yaayam taxawaay. barke Seydina Mohamed booy réew da am dalil am xam-xam am lii yor ay malaaka kay jinne yu lay protégé man ragaluma mbindeef ci kaw suuf. soxluma garde corps soxluma ay dara nañ ñëw je suis en direct inna alladina qaalu rabbuna allah humma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu wa abshiru ceux qui disent que Dieu est notre Seigneur et font de bonnes œuvres mm-hmm. là où ils sont ils sont avec des anges n'ayez ni peur ni crainte xaju balcon munoo réew naankatu sangara munul réew mais moom diine may na ko mu naan sàngara loolu. diine benn diine mayul naan sàngara. je suis désolé. christianisme ma ne christianisme mayewul naan sàngara. Jésus c'est un saint. il n'utilise personne c'est un esprit saint à sortir de ses esprits c'est pas vrai. d'accord kon ñenn ñi ñu ngi accuser Jésus di ko waxal yoo xam ne. Jésus li li je laissez Jésus tranquille Jésus c'est un le Saint-Esprit. ruuhun minhu Ruhullah. Ruhullah. Tu Jésus-Christ. amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ne fait distinction d'entre les envoyés de Dieu agguma foofu de Jésus fils de Marie hmm. bi ne woon allahuma ya rabbana anzil alayna min alsamai takun lana iidan li awalina wa axirina wa minka warzuqna wa anta xayru raziqin ce ce qu'on appelle y a la table servie gis nga ñii di gisee musulmans yi mais ils sont pas civilisés mais c'est dans le Coran xanaa kay dafa fekk ay pays yu ndóor rek 2000 francs la ñuy dépensé jënde xam nga togg benn kilo ñëpp bokk ko boo jëlee kii ñaan tubaab tubal waaye tubaab tubaab moomul cuillère julli da ko moom d'accord am verset spécial pour Marie et nous musulmans on reconnaît Marie la Vierge Marie est la meilleure des femmes de toute la planète même Soxna Khadija même Aïcha Marie moo ko gën yàllaa ko wax mhm. ah waaw donc musulman être musulman le Coran englobe tous les livres de Dieu Tawret l'Injil Zabour c'est-à-dire et la Bible et l'évangile et les psaumes de David lépp ñu mu ngi ci biir alquran le Coran accepte tous les livres de Dieu le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi sallam accepte tous les envoyés de Dieu hmm. maintenant si un autre rejette le Coran ou un autre rejette le prophète Muhammad sallallahu alayhi sallam moom moo motul d'accord mais diine yàlla bi bu mot la yawma akmaltu lakum diinakum d'accord inna diina inda l'islam la seule religion valable chez Dieu c'est l'islam ku mu neex loolu la ku mu naqar loolu la alxuraan moo ko wax point loolu laa gëm. donc vous considérez que ni Barthélemy Diaz mënul dara ci Ousmane Sonko mënu koo yëngal. yow yow excusez-moi du terme crachat Sonko daa xaj ci moom. moo tax ñu naan ko. Ousmane Sonko koo xamante ne day joxoñ rek ñu fal la. yàggatul on est on sera bientôt à dimanche ils ont ils vont avoir honte dinañ xam ne duñu dara ci réew mi te kiw tekkiwuñu dara te mënuñu wax bi ñu bañ Sonko Sonko mooy koo xamante ne foo toog wax ci moom lu ñaaw ñu gën kaa bëgg déggoo ma de te ku bëgg Sonko yàlla bëgg la yàlla ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni la wa yaghfir lakum dhunubakum gisee naa ma may leen naan képp ku la bëgg rek bëgg na ma man te baal naa la ay ay ba ay bakkaaram Sonko ku ko bëgg yàlla bëgg na la te yàlla baal na say bakkaar maa tey wax loolu. ku bëgg yàlla baal ko say bakkaar. waaw maa tey. ah niveau bi xawul sa kawe nitu yàlla la. mais niveau bi kaw nitu yàlla la yàlla moo ko bëgg. yàlla jox ko walla ci pouvoiram du yàlla mooy fale. te Sonko mooy fale. jox ko fale. <laughs> ah yàlla de day. fa law la ahbabtu kuntuhu su ma bëggee sama nit sama jaam dama koy nekkaat. Mm-hmm. fi may waxee kay ku xamul yàlla moo moo dul comprendre ku nekk ci maqaama sharia nag waxuma ak yow doo comprendre ku nekk ci maqaama tariqa aussi di wut yàlla di wut yàlla aw doo ko xam ku def fanaaw fii lay nag xam yàlla kooku lay waxal. xaqiiqa waaw. nekk ci xaqiiqa. voilà comprendre xam nga dafa am étude élémentaire secondaire universitaire man ci universitaire yi laay waxal. mais fii élémentaire yi ñoo fi ëpp ci wàllu diine moo tax souvent booy wax. moo tax nag nga nga bese nga bese xadar bi gis nga Ahmed Khalifa Niass lu bëri lu muy wax si xaqiqa la du waxu public moo tax mu mu diis ci nopp nit ñi. mais tôt ou tard un après di nga xam li wax dëgg la. Hmm. mais dafay diis. waaw ah, day diis fi mu koy waxee ñi mu koy waxal. Ah. ko attan. képp nag ku fi gisul yàlla billaahi boo demee àllaaxira doo fa gis yàlla.